du ñoom. ñu ngi conservé loolu. di leen di wasiyu di ko di leen nuyu ci loolu di nuyu itam Serigne Mbacke Madina mii ñu toogal xam ne macha allah moom itam dafal man ay xalaatam ak i contribution mhm. di nuyu sama rakk ji ma àndal Mouhamed Mbacke di leen ziar ñëpp. Mhm. delloo nañu la ziar cheikh bu baax a baax. imam dañuy tàmbalee vraiment ci dialogue bi nga xamante ne moom la président Macky Sall woote woon euh, bi ñu demee ci dialogue nag man li ma gën a vraiment intéressé jamono ji mooy différence su kàddu yi ñuy wax ñii naan ña fa teewal lislaam ak ña fa teewal nàngam ña fa teewal nàngam euh, ban jàngat nga am ci euh, dialogue bi nga xamante ne moom la président Macky Sall woote. waaw dialogue bi niñ ko liñ ci mën a jàngat bëri na ñun par principe dañu bokk si ñu gëm ne du dialogue ay caaxaan la. Euh, bu fekkee woyofal nga tur bi ba mën ba woyofal ko mën nga ko tuddee meeting. Mhm. wala daal nit ñoo xam ne dañu dajee di diil waaye loolu aussi doon nañ wut luñ ko masqué ba diil bi du fey moo tax ñu woo ñoo xam ne dañuy askanoo ci diine yi. Mhm. Euh, rawat xam nga diine moom lu mu dugg rek ñaare danga nga naan lii dafa sérieux. Mhm. parce que bu dul woon lu lu diine ji du fa nekk. looloo tax yu mel noonu dañuy bëgg kilifa diine yi ñëw ñi teewal église bi ñi teewal mhm. diine këru këru këru diine yi comme ni ñu koy waxee mhm. donte ne tur yooyu yëpp yu ñu war a taxaw seetluwaat ko la mhm. euh, bi ñu ñëwee ñoom tamit euh, li li mu bëggoon am na ko ci ñoom am na ñoo xam ne da leen jëloon comme décor de waxuñu fa farata waxuñu fa lu saf xorom waxuñu fa lu saf suukar mais église bi nga xam ne ñoom dañu organiser wu ñoom dañu organiser lépp du ñu dox ci anarchie. Mhm. dégg nga mën nga wuuteeg ñoom ne war nañoo teew wala waruñoo teew. Mhm. waaye bi ñu teewee ba wax la ñu wax sénégalais yi ëpp ëpp ci sénégalais yi dañoo gëm ne église bi li mu wax farata la. Mhm. wax nañ li nga xam ne ne ko respecter constitution bi suñu institution yi nañ ko régler nañ ko respecter date date le deux bi balaa boobu na élection yi am. mooy li conseil constitutionnel am. Mhm. maanaam ñoom dem nañ ba foofu te tenir fa langage de vérité. donc moo tax dama wax ne église bi mën nañu wax sax ne bu doon lu ñuy diisoo ak ñoom dañuy wax ne dañoo waxaaleel jullit ñi. Mhm. parce que wax ja nekk waxu dëgg la. wax la joo xamante ne ni euh, mënoon naa yóbbaale képp koo xam ne dëgg ak démocratie ak ñu respecté yoon ci réew mi église bi bi mu waxee daf la yóbbaale ci cadre boobu noonu. donte ne ñu ngi gëm ne du dialogue waaw waa ji moom moo nekk ci ay tappaleen di wut loo xamante ni da leen di mbubboo mhm. euh, bi loolu amee ñu bari kontaan nañ ci li église bi def comme ni ñu baaxoo di ko def su jël position jotee ci réew mi du ñu fa nekk di laam-laame wala kii jaar fii kii jaar fële bon lu aju nag ci ña fa teewaloon ñuy askanoom mbiru këru diine yeeg yooyu mhm. moom laay wax ne jullit yi du ñu regle seen problème mukk mukk ci réew mi lu dul dañoo am kuréel lu mel ni conseil supérieur islamique nga xam ne du waxati ci problème mu famille wala problème mu kër wala problème mu tarixa mais dañuy wax au nom de l'islam mhm. nga xam ne jullit yi ci seen bopp ñoo concerté wu am benn kàddu ñu ñu jox ko kenn mu waxal leen ko sinon bu loolu amul état bi danaan kër gu nekk laay laay laay invité mhm. kër gu nekk boo ñëwee ñu jox la kàddu la nga sentir ngay wax mhm. xam nga ne moos kuy wax ñu ne dañuy woote dialogue pour jàpp dak balaa la deux wala ñu jàpp date yow nga ñëw naan fii ba deux mille vingt sept ngay toog. Mhm. xam nga kooku jalagul kooku dafay fo. Mhm. dafa yeb sénégalais yi dégg nga kii ñëw naan le deux bul ba xaw ma lan deux doo fi jógee da ngay toog. Mhm. xam nga kooku ñëwul pour dialogue. dafa yeb sénégalais yi dafa ñëw pour caaxaan. mais imaam am na aaya bu fa jóg bu bu bu aaya bu am Karim ak yooyu Cheikh Ahmed. Euh, euh, yàlla xam nga ne Vito bi ñu ne suba la dialogue bi di am dama ne dama ne ban ban njombe. ban caaxaan ban fooyee diine la Ahmed xalifa war a waxaat yi foofu parce que ñun loolu lañ xam ñun mbo mbooloom diine muñ dégg na Ahmed Khalifa war na faa ñëw wala mbooloo mu mëntu doon ñu ne dafay jël kàddu ñu ngi xalaat ban tooxi doona la war a wax parce que ñun loolu la ñu tàmmal du jëlul yëf yi au sérieux day fooyee diine ji diine ji kenn aaru ko lu ko neex wax nit ñi bërgal ko mhm. Sénégal aussi problème bi mooy en général kilifa diine bu waxee loo xam ne jaaduwul ci diine ji yeneen kilifa diine yi dañuy noppi di ko seetaan ku nekk da ngay toog jàpp sa njàmbur mm-hmm. waaw moom lu mu def kenn du ko wax dara surtout kilifa diine yi ñi askanoo ci kilifa yu mag kenn du wax Ahmed Khalifa dara ñëpp ko seetaan bërgal ko day def lu ko neex di wax lu ko neex yoon ñëpp di ko seetaan mais dama wax ne mais na respecté boppam mm-hmm. xam ne tey fi fi àddina toll nga ñëw contexte bi nga bi nga jël yàlla fi muy waxee waa aljanna tagg leen ak lan leen dig mu wax leen ko ba pare wax di wax ci waa safara waaw ne wa asxaabu shimaal mhm. maa asxaabu shimaal waa safara mooy ñooy waa waa gauche mhm. fii samuumin wa hamiim ñoom ñu ngi nekk ci ngelaw lu métti mhm. ngelawu safara jahannam ak ndox mu tàng la leen yàlla di mbugalee wa dhillin min yahmuumin ak ker goo xam ne garab goo xam ne ker ga mhm. safara wu jóge ngelaw lu jóge biir jahannama moo fay upp ker gi laa baaridin wala karim maanaam ker gi waa safara di ker kerloo mhm. moom la suñ borom di wax ne laa baaridin wala maanaam ker gi seddul neexut baaxul neexut xool ker gi benn xéewal nekku fa loolu mooy wala karim mhm. maanaam ker gi seddul baaxul neexut a xool amul jàmm amul xéewal loolu de la laa baaridin wala karimin bi tekki hmm. gis nga contexte bi yàlla maanaam ay tëkku ak i mbugal lay wax yi muy dencal waa safara ëllëg. kon tekkiwul faaw Karim wax mais dafa respecté wul nit ñi. Hmm. dafa jàppee ñi toog ne ay xar lañu. comme jàngu leen xamu leen dara. man respecté wu leen ay dof ngeen. Hmm. ay naxandum ngeen. léegi damay jël benn baatu arabe dóor leen ko. wala Karim. laa karim foofu li muy tekki laa baaridin wala karim mooy ker googu waa safara di kerloo amul xéewal amul jàmm baaxut neexut a xol hmm. loolu la wala karim di tekki léegi mu ñëw ne wala karim il faut karim dugg maanaam pour wax la dayo bi bi bi ñàkk a respecté sénégalais yi du dem ci benn réewu xam-xam réew mu respecté xam-xam respecté nit ñi mu fay wax lii mais comme moom sénégalais ay xar la leen jàppee ay naxanduum amu leen xam-xam jàngu leen yeewu leen yéen ak euh, kii rabi àll yi yéen a yem. Mm-hmm. su ñëwee rek day jël benn aaya benn baatu arab rek wax ko nu mu ko neexee waaye wallahi mm-hmm. ñemewu ko wax ci benn géewu xam-xam bu mu jàkkaarloog nit ñi mais nag respecté wul nit ñi. Mm-hmm. bu ko neexee tey mu saaga ndeyu Mariama bu subaa mu saaga leneen wax mu ngi noonu ñeneen ñi ragal ko ñeneen ñi ruus ko ndax xaalisam. lu ko neex def daal moom mu ngi noonu. donc loolu man noonu laa ko gisee woon bettu ma bon ñeneen ñi tamit saan gis naa fa ñu jéem a wax wax yoo xam ne da leen di yërëm. Mm-hmm. ndeysaan jéem a wax naan bu ñu la woowee ci dialogue da nga dem wuyu ji loolu la lislaam wax cest di dire texte yi ci boppam. dañ ko tegul ci contexte bi ko yàlla waxee. Mhm. ak yonent bi waxee ko firee ko nu mu leen neexee. Mhm. donc ga maanaam lañ gisoon ci kilifa diine yi rek. Mhm. ci dialogue yii ne nañ fa daan doxalee doxal yoo xam ne représenté wuñ kenn waxuñ ci lislaam bañ fa génnee jullit yëpp am gàcce loolu rek lañ fa gisaat. waaw. Ah, sëñ Modou yow euh, li ñuy wax ne euh, kilifa yi nañu wax kilifa yi nañu wax yow nga bokk fenn.